Momy Therese maa ngi leen di nuyu di kontaan ci li ngeen di def seen série bi rafet na neex na dugg na ñëpp nit ñaa ngi ci gis seen bopp te damay gis même cas boobu sax dama ko gis man comme cas Jalika bi ak mbiram ni mu demee noonu ci kër di di doo di saaga jam mooy loolu noonu en daal am na sens neex na mais tamit jox li mu bëgg a def jox li mu bëgg a def di jàppale nit ki ba mu laal lor. kon boobu doo ci teel a génn nga am jàmm loolu mais man xamankan moom gën ma neex ci film bi mare moom a neex waaw <laughs> neex na ma torop goon ngeen dugal ci benn kaa xam nga xale bu ndaw xale bu ndaw toll ci digg ndawam war a gis kum bëgg yóbbu ko ay parents may ko ko mu dem ba tollu daal ñu koy gisal naan ko kii lañ lay may yaayam di jug naan ko boo bëggul kii dama lay bàyyi àdduna ak àllaaxira te koo fi indi tamit duma ko bëgg loolu mu nekk sama bopp nekk kaa bu garaaw sax bu ngeen ma ci mënee jàppale tuuti war ngeen dugal ko ci film bi daal en am na tamit nit ñëpp dinañ ci gis seen bopp parce que dafa bari dama see gis kaa bu nekk. salaamaaleykum salaamaaleykum gëj nañu waxtaan gëj nañu déggante mais gis naa ne yéen a ngi liggéey naka liggéey bi naa yéen a ngi si jàmm bu baax naka mu naka yitte yi waaw tey seetaan naa épisode 34 ans en fait waaw mais man jàngat bi ma si def rek mooy joor toujours man joor xam nga man je ne peux pas comprendre que joor ren na bëgg ren na bëgg parce que joor bon. moom li muy def nii est-ce que mu ngi sóoraale ëllëg si digganteem ak euh, Jalika te Dieyna Dior ak Jalika yi nga téeméer ay xarit yooyu xam te ni ay caaxaan moo leen taxaw na nekk xarit dañu nekkoon ay xarit yu dëggu nii joor menoon ak Jalika menu ko woon ak kenn donc lan moo jar coor euh, muy def loo xam te daf koy regretter donc loolu man daf may jaaxal quoi mais encore beneen bi si si dolli tuuti rek mooy si cadre de Marème ah. Marème su fekkee ne peut-être may dégg wala yéen man ngeen ko ko wax ngeen wax ko muy muy muy xool waxinam ni mu koy waxee quoi parce wax bi parfois day xaw def vulgaire de trop parce que am na ay mag yu koy seetaan aussi am na ay xale yu koy seetaan euh, ndax waxam du yaax xale yi ndax waxam du am fu muy yobbu xale yi tey ñuy bëgg di xool wala di bëgg di waxee terme yow xam te loolu baaxul aussi xale aussi mag ñi koy seetaan tamit bon est-ce duñu toog ne mais kii dafa réew dafa dafa càkk wala dafa je sais ak ni ñu koy mën a. kiwee quoi man daal su ma sañoon buy wax si genre jonge baax na jonge baax na si jigéen mais mu xool quoi mënoon na ko waxee si beneen façon en fait bu gën a nice parce que tey am na ay termes yoo xamante ni man je suis pas d'accord mu koy wax en tant que benn film yooyu boo xamante ni presque partout dans le monde ñi koy suivre bari na donc man pour man foofu tamit wax ngeen si baay xel bu baax quoi ak ñi ngeen di seetaan quoi ay jégalu bu baax a baax. salaamaaleykum euh, maa ngi di ziar bu wér a wér lu euh, ma bëggoon ci émission bi maîtresse man Cheikh Cheikh Ndiaye lu muy doxalee neexuma moom ak parce que bu jegee bu demee leen dem ñaar moom Marème ba ñëw war na dugg ba ci biir kër gi dugal valise Marème bi xam nga dal tuuti mu ne ko maa ngi dem ay ji mais nga ànd ak sa jabar nu def liñ la semaine nga ñëw ak moom rek daal yem ci buntu kër gi naan ko fee laay dem man rafetlu ma ko dara dara dara dara waaw loolu moo ci nekk sama xalaat ndax bu loolu moom def noonu man rafetlu ma ko neexuma waaw ba pare en plus sama say si bi ci biir kër gi man bu man la sama xel bu gàtt say si bi waru woon am. parce que wóorut instant bi lan la gifagut ba léegi te bu séesee lu ne mun na cee am waaw wóorut daal mais série neex na trop ndax ku nekk mu ngi ciy gis boppam franchement série bi neex na trop neex na trop neex na trop waaw yal na yàlla yokkal xéwal yu bari yàlla defal leen ci jàmm ju bari doon leen ci sutura neex na trop moom merci beaucoup. asalaamaaleykum wa maa ngi ziar ñëpp di rafetlu vraiment ci émission bi ngeen def waaw comme maîtresse d'un man je me dis que comme lu ñu wax rek wujju moom boo ko wërsëg la te yàlla moo bind aawa ñaareel ba ñeent tamit aussi mais Lalla na comprendre tamit wujju moom mooy lool na ko supporter parce que imagine Lalla su bañee di dof dof lu fii nii. Cheikh mën na génn tàggu dee dem fenn dem si mareem ah, def ko lu ko neex doo ko retourné te laala du si rendu compte te laala du ci xam dara laala na muñ rek te fii moom ku nekk xam na ne wa dëgg fa neex yàlla ah, am wujju dafa metti te imagineel nga nekk aawa njëkk ci kër gi di jàppale sa jëkka doonte amul dara ngeen ngeen ñuy jug di daanu di jug di daanu ba un bon jour mu takkal la ña wujju loolu neexul ci xol te jigéen laa aussi loolu moom neexul dara dara dara si xol surtout boo amee tamit lépp si début bi la mais tamit nga waxtaan ak sa soxna ngi ne ko dama bëggat ut ñaareel mu xoolal la loo ci wax mais nga jékki saay nii rek tamit tamit ak ko mais laal la moom moo ko def affaire bi tam ko metti parce que moom début bi xam na lépp man bien avant pour man sa xamu ko woon ndekete yoo xam na ko xam na ne Cheikh Marème lay génn mu koy topp lu am Cheikh ku mu fay ngir muy suivre Marème loolu noonu yëpp tamit kaa bi tamit ci la mais tamit lu kon lu may waxati rek. wujju moom bokk wërsëg la tamit kenn xamul am na ñuy yem si benn jabar donc am na ñuy takk ba ñeent yàlla rek moo xam yàlla na yàlla jubale ñëpp yokk sutura bi yokk mën-mën bi di ñaan yàlla suñu borom bi daal lépp liy ñëw yàlla na doon lu gën ci ñun kontaan trop comme li Marème mag Euh, Jelika ñoom ñaar moom samay référence samay idole lañ macha allah ñoom comme jigéen ñi ñu defee bëri ay bañee ñun dañuy naturel man dañu maa neex trop trop mais joor tamit sama trondoo lu muy def moom jaadul parce que yow sa jëkkëru xarit sa meilleur ami ngay def tuur ngi tëdd ak moom loolu moom rafetul dara dara ci xol mooy yeetit nag bañ doom ji feeñal ko parce que loolu nag rafetul trop rafetul dara dara dara man nag je m'appelle Mayintu di yaay Dior Diaw nag merci beaucoup émission bi am na solo trop. salaamaaleykum waa Soli Maîtresse ngeen def yéen a ngi si jàmm ah yéen de seen série bi neex na trop waaye léegi ñu bari xam naa dootuñ ko seetaan ak maanaam yéen moom. ku mel ni ay mareem yooyu ñoom daal dañ ciy wax wax yoo xamante ni ne soo toog sa njaboot wala dara dafay vulgaire trop fii Sénégal nekkul ne léegi série yi ñu ñi dañu toog ak seeni doomam ñëpp di ko seetaan yéen war ngeen a bàyyi xel nit ñi bu baax a baax ngeen wàññi yenn wax yi ak yenn defin yi ngeen wàññi ko loolu daal moom bu ngeen ko defoon da ngeen seen séri bi dina neex soo xoolee ci yeneen séri yéen wax yi ngeen di wax ak ñi ngeen di defee nii ñeneen ñi duñ ko def yéen nag leen neex ngeen di jaar da ngeen di jaar si digg bi wax ko wala ngeen def ko nit ñi di ko dégg te nit ñi toog ak seeni doom ak loolu daal dafa am kersa fi ñun ñun loolu ñooñu gën a naqari seen seen seen séri bi waaye nag série bi neex na waaye moom loolu daal la ko yàq moom seen yenn defen yi ngeen ko mënoon a bàyyi waxuma sax wàññi mais da ngeen ko war a bàyyi parce que war ngeen a di xool seeni langage ak seeni defin moom daal loolu moom moom bu ngeen ko dindi woon nit ñi dinañ sawar lool lool lool lool pour la nag moom moom man lii def maa jaaxal si moom moom grande dame bi muy woote xanaa nekkul si moom grande dame dëgg soo ko takkalee wujj dafa war a assumer ay responsabilité ba pare te moom li mu woote woon digganteem ak jëkkëram dafa meloon ni moom mooy yaayam loolu la waroon a continuer mais moom saalikam bi dafa ëpp trop day bëgg ëpp loxo moom dafa dem sax ba nga xamante ni côté boobu neexatu ko ci ndaxte ni mu jëlee wujje gi moom moo metti trop te yéen da ngeen a jëloon laala def ko comme koo xamante nii ne ku baax la ku responsable la mais li def ni tax na moom léegi rôle bi ngeen ko joxoon dafa mel ni dafa changé waat daal salaam salaam maa leen ziar bu baax a baax a baax a baax bëgg aussi wax si euh, série euh, aussi kon ni ko ni ma koy déggee rek euh, Marème war na tamit modèle parce que ay waxam dafa vulgaire trop trop trop trop franchement parlant ay waxam dafa vulgaire trop trop sax aussi tamit euh, nan laa ko mën a waxee sax Jalika ak Dior aussi Jalika ak Dior parce que joor rôle bi mu joué nii nii nii ak euh, li mu li mu njëkk def ak maintenant li mu commencé def nii nii dëgg yàlla moom amitié bi mel nii moom.